kon fi nekk nii di leen wax ne 18 safar la ñëpp wax ay tabaskeeg ay ñoom ñëpp ginnaaw benn rombee nag événement bu mag bi dëgg mooy 18 safar Touba di sunu lépp sëriñ Touba di sunu lépp Serigne Touba amul morom ku koy weddi nag nag nañu kii mooy moromam Serigne Touba jëfal na askanam aw ko mënu la am murit bi di ko saboo sagoo jullit bi di ko ndamoo Sénégal di ko tiitaroo àdduna di ko féexloo dul nelaw nag am ko dafa jaayante ba jot ko lu neex waru lu neex lu warul sàkku ko lu métti lu naw lu métti lu war daw ko kon na ku ne bëgg nga ko ndigalam sàmm ko ñun daal amatuñ benn priorité amatuñ benn yitte amatuñ fenn soxla fu dul Touba màggal gi nag Touba la màggal gi nag du Dakar du feneen du France ñëpp ngi bàyyeekoo nii gis ngeen rang gi ñëpp ngi rang pour jëmale Touba Touba tubaab yeeg naar yi eh, indien yeeg ñëpp ñu ngi di ram am nga si Touba la de ila Touba 18 safar lan wax ba de 18 safar ñun ñoo ngi dem Touba spécial Baye sa ngi nag euh, docteur Wade ak Ibaadu yeeg ñoom Petit Sow ak nga xam ne que Ñaseen yeeg Murit ak Laayeen ak ñëpp ñoom jibi njaago yeeg joolaa yeeg séeréer yeeg tukkuleur magal 18 safar nga ah eh. ñëpp ñu ngi ci xam nga ni kay boobu kay 18 safar lañ jëm de 18 <laughs> safar waaw ah, ana sa bool jël nga sa biir ba pare 18 safar biir bi kay moom mi nga yàgg na yàgg na kon ñu ñoo ngi yàlla ñu bañ a mas masa ndax màggalu Touba jar na bàyyi sa yitte ngir kii ko li ne nag euh, gileem ba ci ginaar la ci waay man def fas seef jàng alxuraan jàng xasida màggal gi nag waxuñu nga dem ba ci màggal gi nga dem di joxe ay rendez-vous foofu yooyu amatul ci àddina di joxe ay rendez-vous xam ngeen fi ma leen wax ay nan dëggeen ñi def loolu ala sayyidina Ibrahima Fall cheikhuna xalilullah iska ilal habibullah ilal habibullah ba nga seen ci màggal Touba kon Touba jërëjëf est-ce que Serigne Touba